Musawa santal da cante ya fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Musawa sheikh Mustafa santal da cante ya fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Musawa tadal nang nelaw ya Mustafa ñépp mokk amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yum may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi mustawa ndax bis bu serigne bi fonk ba sas ko sa sa baay bu bax ba di serigne Modou mustapha mi nga xamne ne lu ko serigne bi santone def nako liko dalé ci indi ko Touba te khatamul fandama fondement fa yemul ci fondement jumaa ji sax waye def na sax élévation bolé ci yar njabot gi koku japp naa ne bu mu woote fi Touba amul julit bu ko wara wuté nun nag ndegam danoo bokk ci kër gi ñamewuñu koo wuute moo tax président de la république ne nu nañu si ziar la ñaanal la waaye it di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal réew mépp ñaanal àddina bi ndaxte kat jàmm ci la lépp xaj jàmm la njëkk a sàkku pour nga ñaanal ko réew bi te it nga ñaanal réew mi naataange ci nawet bii ñu dugg xam naa ni boo ñu ñaanalee boo ñaanalee réew mi incha allah ñaan nga dana nangu ndax xam nañu bu baax sa taxawaay sëñ bi Mbàkke ñu ngi lay gërëm di la sant ci kàddu yu gàtt daal loolu laa la doon bëgg a yeggee te di la feddali it suñu ko dële Mbàkke jërëjëf Mbàkke sëñ bi nee na mi ngi lay nuyu yaa ñi nga àndal ñëpp nee na mi ngi leen di xamal ne bég na ci ñëw gi ngeen ñëw wuy si ko ci wooteem bii nee na la ngeen wax président bi ki leen yebal di Bassirou Diomaye fay sëriñ bi nee na bég na ci délégation bii mu yónnee si ci moom nee na délégation gis na li ko composé xam na ne fonk na bis bi ngir tolluwaayu délégation bi lool yi nag nee na mi ngi ko ciy sant di ko ci gërëm nee na mi ngi xam ne yan bi nga xam ne yàlla yan na ko ko diis na lool te du yan bu yomb waaye nag ginnaaw sun boroom moo ko yan ngir mu liggéeyal réew mi nee mi ngi am rafet njort ci sun boroom dana ko jàppale ba mu yégale ko ndax xam na ne lu baax rek wu tax a jóg te lu baax moom te lu baax ñëpp ko bëgg nee na mi ngi koy gërëm mi ngi koy sant waaye mi ngi koy ñaanal mi ngi sakku ci borom bi ki nga xam ne Cheikh Moustapha mi woote jotaay bi dane woon dellu ci yàlla moo tax mu woote ko mi ngi koy ñaan ci bis bii yàlla defal ko ndam moom mboolem ñi ànd ak ci liggéey bi nee na kenn ku nekk it la sas ci liggéey bi ci yàlla jàppale ba am ca ndam. nee sant na bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf. ña daa xiiru ak seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha ña daa jabar ña daa ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw